أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وهو الذي حلح من الماء بشرا فجعله نصبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون الأوفياء أيها الأحبة أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soppe yi am di jàmm yi ñu ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo ci rajo Safina FM 98.2 fii ci Scat Urbam di nuyu bu baax ak ziyaar di ñaanal fadilatu Cheikh Thierno Hamidou yàlla defal ko tawfiix yàlla defal ko sutura sax daa iman incha allah ñaan yàlla dolli ko wér ngeen ñaanal ko bu baax ci mission bi yàlla defal ko tawfiixul ilaahi yàlla kàntanal ko dëgëral ko incha allah moo it képp ki nga xamante ne yaa ngi ci waar wi rek di góor góorlu ci mission boobu lay muy safina saadaati ak lu ko lu ci aju ci rajo bi ci télévision bi ci yëpp ngeen ñaan bu baax ndax loolu mu ngi ci aw yoon incha allah yàlla def ci barke def si sutura bu baax di nuyu Asayda Ñuma directrice mu jotal ñu nuyu ci rajo bi ñëpp ñaan yàlla tawfiixil ilaahi njaboot gi ñoom ñëpp yàlla sàmm leen aar leen di nuyu ñëpp jël nuyoo Safina Saadaat jox ko Thierno mu joxal ñu ko Thierno Bachir ñu koy ñaanal tawfiix sutura wér gu yaram mu ya, yàgg suñu kanam lool Thierno Bachir macha allah di nuyu soppe yëpp nuyu suñu wayjur alxaaja Kuma Njaani Saar su papa El Hadj Abdoulaye Diop fii si di nuyu waa erbam Erbam yëpp erbam Urbam ak lu ko wër ci Amo Shelter Konachab CSE Sicap Foire Fotjarol ñun ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax dëkkandoo yi ajaar ak di nuyu bu baax. Adja Marie Diallo Fat Badji ñaan yàlla defal leen tawféex ñu njiital ñu nuyoo dëkkandoo yëpp nuyu suñu yaay yi na ci gox bi Adja Maymuna Diouf Adja Nogay si maam Maguette Diop ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax mag ñi Pape Amadou Sow rajo yokkute Pape Wargo woon El Hadj Baye Ngale Dia El Ndiaye ñu ngi leen di nuyu bu baax ñoom it ñu ngi delloo nuyoo di ñaanal ñëpp macha allah ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp kenn ku si ne rek ñu ngi leen di ziar te di dégg euh, jéggalu ci ñoom ku ci dégg rek waaye suñu xel mu ngi ci yéen wax dëgg yàlla léeg-léeg xat-xat yi rek waaye ñu ngi xam ne yéen a ngi ñuy ñaanal yéen a ngi ñuy bàyyi xel ñu ñu ngi leen di ñaanal bu baax yàlla yàggal leen fi yàlla defal leen wér defal leen sutura Pape Sow mu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp bàyyiwul kenn mu ngi profité di ñaanalaat ñëpp rek ni mu koy defee jamono bu ne. soppe Safina ak lu ko wër waye tamit di ñaanal sëtam wala bok suñu sët ñun ñëpp seen doom seen jarbaat Jaynaba nga xamantene moy secrétaire ma sha allah ñaanaloon nañ ko fi samedi jox nañ ko serigne ma sha allah ka defé yalla yàlla barkel yàlla defal ko sutura bu baakha baakha baakha baakha baakha yàlla taxawu ko zahiratan wa batina Euh, góor gi nee mu ngi kay ñaanal bu baax waaye tamit mu ngi ñaanal ñu ci ñëwoon ñëpp tamit mu ngi leen di delloo njukkal si seen taxaw ci seen teewaay ñaanal nañ ñëpp sant na ñëpp waaw wax dëgg yàlla gis na ñëpp mbokk yi fu mbokk nekk rek euh, teew nga ci bésu sëtam boobule ànd ci ax ñoom euh, wax dëgg yàlla gunge leen ci ba wéetuñu ci waaw kon nag loolu sedd na ñoom ñëpp sax lay wax du wax moom rek famille bi seen xol mu ngi ñaanal ñëpp mu ngi ñaanal it waa Safina Saadaati si seen ñaan yi ñaan yi egsi na nee na mu ngi leen di sant bu baax wax dëgg yàlla yàlla na yàlla dolli seen sutura bu baax a baax a baax a baax nee na fàttewul Thierno Hamidou fàttewul ñuma waaye surtout mag ñi Pa Warga woon El Hadj Baye Ngala El Hadj Doudou Seck El Hadj Yoro Ndiaye ak ñu mel ni ñoom mu ngi nuyu ñëpp Adja Maymuna Diouf fàttewul kenn. Libas macha allah noonu Pape Mor nee na it El Hadj Malick ndonga liggéey ñoom ñëpp rek mu ngi nuyu soppe yëpp yalla yalla yàlla defal leen tawféex di nuyu naaji bi mu jotal ñu nuyu waa hôpital Abass Ndao waa rawatina waa réanimation soppe ya fa nek ñëpp ñu ngi leen di nuyu liki ki Philippe Maguilène senor ñu ziar malade ci hôpitaux yi Abdoulaye Sarr Guinté Libas pap Mor ñu ngi leen di nuyu ñoom di leen ñaanal tawféex di nuyu suñu yaay ya Fall ñu koy ziar bu baaxa baax. di ko ñaanal tawfiix sutura su sax mu laa Abdoul Aziz Mbaye El Hadji Malick Samb Yoff Mariste ñu ngi koy nuyu di nuyu Adja Binte Ndoy Pape Assane Gueye Yoff Nangaañ al imam Salih Ndiir mi ngi nuyu al aima wal ulama imam Ousmane Faye jotal ñu nuyoo di nuyu Alioune Mbengue ak ñamu toogal sa daara ji fële ci Yoff Ndenaat muy fay nekkal ñëpp ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di leen ñaanal yàlla Gornar Seck di nuyu ñi ci tali bi yëpp taximaan yi rawatina Ibrahima Sila Diaz Yoff Ngapour di nuyu kolle di ko jox nuyoo njabootu El Hadji Baye Ngalla mu jital ñu ko njaboot gi ñoom ñëpp yàlla defal leen tawfiix Abdou Sarr yu diis soxna Binta mbay Liberté cinq ñoom ñëpp Mountaga Gaye ñoom euh, Marème li ñu ngi leen di nuyu Astou Ngom Padois ñëpp Rahma fàttew ñu kenn yaa Aïcha Diallo soxna Maymuna Jaw HLM ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu yal yàlla fay leen Mbéri Guèye Abdoul Aziz Diop Kumba Mbengue Cité Fadia ñoom it ñu ngi nuyu waa camp Malick Sy ñu ngi leen di nuyu les sapeurs pompiers yi jël nuyoo di ko jox Malick Ban moom it macha allah kenn na ci kër gi. kon soppe yi am di jàmm yi teewlu Safina FM 98.2 ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal ci teewlu bi ngeen di teewlu ànd bi ngeen di àndax seen rajo Safina ci laaj yi macha allah yal yàlla fayal ñu leen. tey ñu ngi ñëw ci laaj yi nga xamante ne ay mbokk soxla nañ ko ci wàllu jëflante binde ba def la doon wax ne mu kallaf lu muy def rek war na ci xam atte yàlla subhanahu wa taala ginnaaw nu yooyee ziyaaret yi lislaam dafa ñaax doom aadama yi ci dimbalinte taawanu alal birri wa taqwa lislaam dafay ñaax doom aadama yi ku ne di gestu sa moroom lislaam dafay bëgg doom aadama bi taxaw ci soxlay moroomam moo taxoon yonente bi ne képp ku nekk ci sa soxlay moroom yàlla mu ngi ci sa soxla maanaam yàlla mu ngi lay taxaw te yàlla moo binde noonu àddina bi léeg-léeg nga toll foo xamante ne soxla dina la njett lool moo tax li sabab laaj boobu ñu indi ko tey mbokk yooyu li mooy jëflante ci wàllu leb ku wax leb rekk wax nga riba kon doomu aadama bi jullit bi war na xam lan mooy jëflante bu dagan lan mooy jëflante bu lislaam gërëmul muy riba riba moom ndollente la ci anam boo xam ne lislaam gërëmu ko waaye lépp moom ci lislaam am na cëslaay mooy jël dara ci li la yàlla dénk nga génne ko ci li nga yor dimmalee ko nit mooy nga jox dara ci alal ji la yàlla jox koo xamante ne daf koy am fu mu ko féete lolou motax tax ñu koy tuddee bor ndax da fay jël ci alal ji la yàlla jox jox ko ki lepp tour yu bari nak xeet wone rek amna lek lek tour wo ko jox suñu borom bi mu ngi ñuy wax ci alquranul karim ne man zallazi yuqridu allaha qardan xasana fa yudaa'ifahu lahu ad'aafan kathira C'est al Baqarah, ayat 245. Man zalezi Allah, ana kuy lebal yal, lebal bu abu darda sahaba boobule bi mu déggee aaya bi rek dafa dem ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam ne ko tàllalal sa loxo sama toolu tàndarma ba nga xamante ne ñu koy jamono ca bayruha lebal naa ko yàlla lebal bu rafet maanaa kan mooy def ci yoonu yàlla la yàlla tudde man zallazi yuqridullah xam nga yàlla dafay employé terme bi nga xam ne miin nga ko daf lay bëgg rassurer ne la li nga def ci yoonu yàlla loolu sànkuwul mu mel ni da nga ko leble te danañ la ko fay tax olof di wax ne atte bor fay atte bor fay kon dang ko leble dina ñëw motax mu ne man zal lazi yuqridu allah ana kan moy lebal yàlla lebal bu rafet pour rassurer na la li nga joxe bor la danañ la ko dello gis nga mu ne fa yudaifahu lahu ad'afan kathira yàlla mu ne dana la ko fulal ful yu bare bare bare nga dégg ci ne ba ci gëna néew fukk la waye budé dee jëflante doom aadama rek nga lebal ben mu fay la fukk kooku riba lay doon baaxul fa yudaifahu adafan kathira kon yàlla nee na danaa la fulal benn bi nga defoon danaa la ko fulal def ko fukk bu doon ne misaal 100 francs la ma defal la ko mille franc waaw bu dee dix mille la ma defal la ko cent mille kon gis nga suñu borom subhanahu wa taala ni muy waxe ne fa yudaifahu mu ngi lay wax ne lu baax li nga def man yàlla dinaa ko ful te fukk yooyu nag moo gën a néew sellal ga lu mu gën a am man sama borom ma lay fulal li ngay def ila sabu miati def la yonent bi wax danaa ko ful ba léeg-léeg mu weesu sax juróom ñaari téeméer sept cent ci ay ngëneel kon mbokk yi lebal yàlla jaare ko ci jaam yi kon loolu fi sabili la waaye bu dee ci wàllu bor nit ki nga xamante ne kon soxla na ñëw ci yow danga koy lebal te def la koy delloo moo tax suñu borom ne fa yudaa'ifahu danaa la ko delloo kon ñàkkuloo ko waaw léeg-léeg sax ñun nga gis nit nga lebal ko dara mu delloo la ko ay fan wala weer yaa xam nga ne ko fi ma ko fayee day moo daxati maanaam soxla woon nga mu delloo la bor suñu borom loolu la ñuy defal ëllëg yowmal qiyaam waaye am na ci yoo xam ne dana la ko wan fii ci àddina lu baax la nga defoon na ci meññeef yaa ngi nii te egseeguñu allahira fa yudaifahu lahu adaafan kathira kon lu baax li nga def suñu borom daf koy ful kon leple mbokk yi sofaan ba nag dibi lislaam beñ muy riba abal ma ñaari téeméer ah nga naka kat ñaari téeméer ah ñaar fukk nga may fay danaa si teg ñaar fukk danaa si teg fukk danaa si teg juróom loolu nga siy teg ndax daf la leb loolu riba la mbokk yi bu leen ko jëf li waral mbokk yooyu di laaj-laaj boobu li mooy dafa ni moom day dafa am lu mu bëgg danañ ko tudd ci biir incha allah mu dem ci banque bi pour leb intérêt yin ciy teg kon leb lislaam nangu na ko waaye riba lislaam beñ kon lebal ma ñaari téeméer suma lay fay ñaari téeméer laa lay fay ñaari téeméer laa lay fay walla lu ni mel lebal ma ceeb saaku ceeb bu weer yu deewee walla fex ñaari weer walla fex ñetti weer ma delloo la saaku ceeb waaye bu ma la lebalee benn saaku ñaar nga may fay kooku riba la kon doomu aadama bi dafay xam ne lislaam may na ko mu leb yowit nga xam ne lislaam sant na la nga lebale su fekkee jekkoo nga ko waaye bu leen si teg dara muy tudd riba bu leen ko def moo tax boo ñëwee ci axaadis yi am na yu bari dañ ciy tudd yenn rek dañ jële ci ibnu mas'ud mu ne yenente bi nee ne ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratayn illa kaana ka sadaqatiha marra waaw mhm. leb nga lebal nit ki non seulement daf lay delloo waaye yiw moom nga ciy amee parce que yaa ngi koy fajal soxlam yaa koy taxaw ci aajom yangi dim dindi njaxareem ci mom yaa koy teggil tis kon lola mom la yonente bi wax ne ku taxaw jam bi yàlla ci bopam mom mo lay taxaw الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه yàllaa ngi taxaw temm ngir taxawu jaam bi mu ngi taxaw temm ngir fiitee la fépp su ko defee kon mu bir la ne kiy lebale am na tiyaaba donte la moom dañ koy delloowaat la mu lebale woon kon jullit yëpp d'accord nañ ne bor lu lislaam indi la lebal waaw dimbalinte la waaye kon jamono bi bu ñu fexe ba jamono këf ñu ñu ne ah lii dey moo xew ci jamono la ko waral mooy mbokk yi da nga gis koo xamante ne danaan mankat dama bëgg kër kii ne dama bëgg oto kii ne dama bëgg nàngam waaye yow yàllaa ngi lay defal sutura am na siloo ne am na foo ne nga ne dama bëgg jënd ay dàll pourtant yaa ngi sori dàll di dama xa ñëw kon loolu nga bëgg lislaam li mu bëgg mooy daanal sa doole rek te daanal sa doole te muñ waaye dugg ci loo xamante ne ni riba daf cay dugg muy yow ma koy jël ah kala koy jox yooyu yëpp xeeti riba la waaye bu loraange amoon loraange fa man itturra xayra baain aaya ba day ñëw taxaw lu nga situation boo xamante ne nii loraange lii bu amul nga alku waaw am koy faj wala yow yaay faju amuloo noo ko faje def nga def jiim nga jiim sottiwul bu fi riba sësee nga dem lépp ñu lebal luñ ci teg ngay fay ndànk-ndànk lislaam may na la ko ndax loraange moo taxaw fa manit turraja mooy tax waaw da loru waaye nag dama am dàll yu mu bëgg a ah oto yi de moo xew dama bëgg a jënd liñ ma si tegal tuuti la waaw déedéet kooku riba la même boo ne système bi loolu moo fi xew réew mi loolu moo fi xew tey jii loo bëgg dañ la koy jox ak crédit di ko jël ndànk-ndànk am na luñ ciy teg donte la nga ne barayul ah nu mu mën a toll loola riba bu leen ko jëfandikoo bu ko jëfandikoo waaw kon gis nga jullit bi day xam ne am na nu lislaam organisé dundam am na suñu boroom nu mu ko jàngale waaye muñ ba ci muñ kon gis nga soo muñee tuuti rek yàlla subhanahu wa taala dana la defal ay génnuwaay maanaa dana la jàppale dana la fiite foo ko foogawul woon te yooyu macha allah fadilatul imam cerna Xaamidu am na lu mu ci indi ci tuub dellu si sa boroom dellu ci sa boroom daf lay may nga préparer sa diggante sa boroom bala ngay sàkku la nga am yéene yàlla defal la ko ci mboolem ñaawtee fi nag lii day baaxul nga ne naa ko sori buddeeku naa ci loolu bàyyi naa ko dootuma ko def kon dama ko daan jëfandikoo di leb ñu may lebal ci anam boobale waaye bis ni tey ne xam naa ne baaxul dootuma ko def waaye lu dul loraange comme ni ma la waxee léegi waaye bokk na ci li lay dimbali mooy nga nekk zahida azuhd mooy tarku jami il munkarat moo taxoon yonente bi ne li araam leer na li dagan leer na waaye seen diggante am na yu lënt yi lënt nag soo si sooboo fu araam rek la lay jëme kon doomu aadama bi na góorgóorlu ba yu lënt yooyu ne ko fi bàyyi mooy nga naan ah service ba day ñëpp moom lañuy ñuy jël suñu mbootaay gi day am nañ benn fournisseur moo ñuy jox nàngam moo ñuy jox nangam az-zuhd na nga dëddu àddina waaye tamit alware na nga sàmm ba du lu ñëw rek yóbbu la kon mu ngi lay wax ne wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu muy at tawakkulu nag da nga egg ba fenn fa ne da ngay jël sa lépp nga ne ah yàlla yow yaa ma ci doy comme Thierno Bachir Thierno Hamidou mu ne léeg-léeg mbir taxaw nga dem ci diw taxaw fa jooytu fa wax fa lu dul noona ëllëg mën na la jox mën na la bañ a jox walla nga dem mu ne la ah ñoom benn nii rek la ñuy def tuutal nga sa bopp waaye boo jëloon lépp ndëkk wéer ko suñu boroom waw fawwidu amri ila allah inna allaha basirum bil ibad yàlla sama lépp jox naa la ko yàlla doy nga ma ci lépp wa u fawwidu amri joyal na la sama mbir yow yàlla ya gëna xam sama mbir comme mam ibrahim namu ko defé won sa safara fa yàlla ne yaa naaru kuuni bardan wa salaman ala ibrahim way nek fa won naan namruus way dimbali ma ay waay nanga dede dafa ne yàlla day xam na ci li ma ñaanu ko sax na kan yàlla waaye malaaka yi biñ ñëwee dafa ne sama borom xam na sama situation ko fawwidu amri ila allah baadama tawakkala ala allah bi mu sukkandikoo ci yàlla kon nag waxtu nodd bi incha allah bu ñu ñëwee rek ñu continuer waat incha allah. yal na yàlla doole sutura bu baax di nuyu soppe yëpp eh, fu ngeen mën a nekk rek ñu am mbégte lawal ci teewlu bi ngeen di teewlu Safina di leen seedeel ne wax dëgg yàlla am na ñu mbégte ci yéen lool lool lool lool di feddali suñu kóllëre ak yéen di leen ñaanal yàlla sutura su sax incha allahu rabbi yàlla fajal ñu suñu aajo yal na yàlla wéral cër yi. Euh, fu soppe na rek ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax di la dalal ci Safina FM 98 point ngi seen émission xam sa diine soppe yëpp macha allah ñu ngi leen di nuyu bàyyi bàyyiwuñu kenn wax dëgg yàlla ñu am kontaan te lool kon tey ñu ngi indi lu jëm ci wàllu rep leb ak riba kon bu ñu waxee ak taqwa muy ragal yàlla wa man yattaqi llaha yarzuqu min xaysu laa yaxtasib gis nga bu fekkente ne da nga laxasoo da nga takkoo da nga làmboo ragal yàlla yàlla na maa lay wër sëgale min xaysu laa yaxtasib foo ko foogewul woon da ngay jékki-jékki rek xéewal dal ci sa kaw ah nu mu mën a ñëwe walillahi xazainu samawati wal hazainu samawati wal ard yàlla ay magasin du jeex kenn xamul nu mu toll kenn xamul fu mu ne kenn xamul ci lu mu ko def kon la la koy may mooy ab taqwa mooy ragal yàlla ba doo dugg ci lenn li mbokk yi teewlu Safina FM 98 point 2 lépp baax na waaye tamit doom aadama bi warul tàmmal boppamit di leb waaw leb na ko soxla tax a jóg lu ñor tax a dama am soxla bu ndaw dama bëgg ay jënd ay dàll dama bëgg a jënd ay yére te si bii xew nii daal neex na ma lool ma ne yoruma VIP la wala jesner ganilaayi fii yeneen ak yeneen bu dee xale yi moo xew léegi ñii bëgg ay oto fii ñii bëgg nangam yooyu am na ci yoo xamante ne wàllu lig la waxuñu jullit du ko am teraanga yëfi jullit la jullit dafa war a bëgg lu baax waaye nag na nga sàmm sàmmwanteex lislaam dunel bu loo tourné rek nga leb gis nga moo tax di nga leba leba leba ba guddi rek ngay mën di génn bëccëg dootoo ko génn parce que leb nga ñëpp foo jaar dootoo ko am guddi daal ngay jiim di génn ndànk-ndànk jaratu ko kon foofu it li ñuy wax di ko tàmbalee si suñu bopp mooy nit ki na doylu mooy nit ki na doylu waaw loolu dana la ci dimbali ba doo tàbbi ci lu neexul borom bi subhaanahu wa taala kon riba mu ngi taxaw kon riba mooy ndollante boo ma joxee benn ñaar nga may fay nga la joxee ñaar ñett nga may jox wala ñaarax genn wàll loolu riba bu leen ko nangu kon bul ne it institution yi fi xew ci banque yi moo fi am donte am na banque yoo xam ne léegi ñu ngi jëm ci wàllu lislaam di la jox te bor du si am bokkul ak nag nit jox la ngeen di liggéey mu ne ah soo amee ñett kat da may jox benn bi nga jël ñaari ñu tax mu ne la ñaari parce que yow yaay nekk si terrain bi yaay jot toona bi bu dee tool la yaay ne ci tool bi bu dee poulailler la yow yaa fay ne bu dee bu dee ainsi waaye daal man benn bi mooy sama capital moo ci ne kon damay am ci mbir mi action kon dafa mel ni genre société la waaw ah, dama la lebal kat waaye kat bu bénéfice jotee boo jaayee soo récolté soo nangamee man kat sama centage nangam la kon yooyu mu amalaat la yu baax parce que am nga xelaat bi wala am nga volonté bëgg a liggéey waaye amuloo capital kon ki nga xamante ne ñëw na associé yow xëj na moom am na capital waaye jotam wala manul gere wala nangam ci secteur boobule mu jox la nga ciy yëngatu mu am si pourcentage kooku dara amu ci boo ko dama bëgg ubbi nangam mu ne la dama lay lebal de waaye nangam nga may fay kooku moom riba la waaw kooku riba la kon gis nga eh, action bokk la riba kon man nañ yaakaar ne dañu ñuroo wala nangam moo taxoon ne yonent bi saa salaam ne li araam leer na li dagal leer na waaye seen diggante am na yu lënt yu fi ne na ngeen fexe ba yu lënt yi na ngeen ko sori kon mbokk yi teewlu Safina FM mbokk yi nga xamante ne laaj boobu si yéen la bawoo it ah keneen koo xam ne dégg na ko te jërëjëf jëf xam naa ne seen jubluwaay loolu la pour nit ñi di ko bàyyi xel mooy riba baaxul nañu ko moytandiku waaye lépp moom lislaam encouragé na ko bëgg ko te suqala ko mu ngi ci waaye tiyaaba mu ngi ci ci kiy joxe alalam kon dénkaane yooyu nga xam ne Thierno Bachir mu ngi koy indi tubbe ko ci al Thierno Hamidou tudde ko ci alquran ak sunna ci tax wallaahi ci sàmm jël sa lépp nag dénk ko yàlla moo tax jullit da ngay wóolu yàlla doyloo ko jël sa lépp jox ko yàlla waaw jox ko yàlla mais jox yàlla sa bopp nag tekkiwul ne nga na yàccaaral déedéet doo yàccaaral da ngay yëngatu waaw da ngay yëngatu da ngay waaw gis nga euh, yàlla yàgg nañu di wan yëngatu doomu aadama lu mu lay jural ci njariñ daf ñu ko misaal ba ñun ñëpp doone sax liir ba déedéet neel ñun ñëpp ngay waxal sa bopp bi ñuy juddoo rek yàlla wan nañu xéewal fi mu ne andil ñu ko ba mu jege ne li ci des nag seen yëngatu moo koy mottali nag kon bi ñu nekkee ay liir andi na weenu yaay ba teg ko ci ñun xattaa sexal ñu ko sax waaye bësu ko de déedéet wan na la ba nanga koy saxe andil la ko waaye bés ba nag si yow la maanaam yaa koy muuc mu ñëw mooy effort boobu ngay def ñun ñëpp wan nañu ne a ah foog nga def effort yàlla kay conditions yi dana la ko fexeel jàppandil la ko wan na la marché bi wan na la géej gi wan na la miin yi fi ñu ne moo xam or la wala jama wan na la nangam wan na la tool yi wan na la wan na la lu ci ne fa alhamaha fujuraha wa taqwaha li si des nag yaa koy muttali ak sa bopp kon ku si ne da war a def effort kon mais bul sukkandiku rek ci toog di laaj waaw ah, lebal ma soo lebee leb ba mu yàgg fenn ngay duggi mooy lan mooy dugg ci buntu njublan waaw la ceerna di wax rek mu jege da ngay ñëw rek di di wokk doos aw loos waaw di wokkatu rek waaw parce que kersa sa gor moomul yenn yi waaw su ko defee kon bor loolu moo ko tax a jóg tey dollil leen ci loolu ne boo lebee bor na ko bind waaw bu ngeen lebee na ngeen ko bind waaw da ko bind waaw iza tadayantum bi daynin ija ila ajalin musamman yàlla nee ne faktubuhu de waaw su ngeen lebee bor boo xamante ne dafa am fu mu jëm ah, faktubuhu de da ngeen ko bind waaw ñaata nga may leb mu ne la cinquante mille cent mille deux cent yaa xam na ngeen ko bind yow may leb nag bul ne kii dafa bëgg bul ne kii dafa tubaabe bul ne dafa compliqué li ko lislaam digal moom lay def parce que xel day fattu te mbind mi moo fiy des ëllëg témoin la waaw xel day fattu su ko neexee it moom mi lay lebal su ko neexee mu ne du ko bind parce que wóolu na la loolu ci moom la dépendre kon gis nga foofu it nga dégg ne alxuraan isa tadaayantum bi day nit yàlla moo ko digle mais du ku ko deful am nga bàkkaar gis nga kon digle yi yëpp bokkuñu ay ay ay ay degré waaw yëpp bokkuñu ay degré yàlla fa muy digle julli ku ko def am tiyaba ku ko deful am bakar lek ay duma ma ngi taxaw fu muy waxe zakat ki matal zakat su ko génnewul yàlla génne ko par force lanen nonu lanen nonu waye nak budé nak lepp la ah yenen mu amalaat yi foofu daf lay wan na rek li mo gëna dal xel parce que nit day fàtte su ko defee ngeen bindeku waw ngeen bindeku am na faneen ci biir aay bi boo ko toppee lu dul nag loo xam ne da ngeen bokk place di yëngatu e abal ma cent franc ma wecc kii abal ma juróom ma wecc kii abal nga ko bor la kon am na yu sew sewaan yooyu bu ngeen ko doon bind seen liggéey man na tardé waaw yooyu nag mu ne xëj na man nga jàpp même bu fàtte woon sax xëj na loola du la lor waaye boo jëloon yenni somme yi lebal ko nit mu nar ko fàtte waaw loolu de fàtte woon naa ko loola dafay am benn impact bi sa économie xëj na am na foo ko yaakaare woon kon loolu man na la lor moo tax mu ne na ngeen ko bind waaye yu oyof yi nga xamante ne nag moom du yàq dara eh, weccit la yu ngeen di abalante abal ma ma wecc kii abal ma ma jox kii yu demee noonu mu ne loolu nag moom eh, dara amu ci mën ngeen ko joxente rek su fàttee it eh, boo fàttalee mu ne la ah loolu joxoon naa la ngeen xam nga yéen a bokk bërëb bi di ngeen bàyyi mu dem loolu du am benn jeexital ci yow waaw mais daal bor boo xam ne lu signifiant la l'islam dafa bëgg ñu bind ko am ay témoin ay seede ne nàngam su nga nekkee bërëb boo xam ne même amul ay seede yow mii lépp yaay bind ne man diw maa lépp diw bor sangam nga signé mu signé ila axiri ah. voilà kon yooyu ñu ci bàyyi xel sharia moyta na mu ñuy moyta ndokuloo boo waree fay bor ngay dawloo boroom gis nga moo tax xattaa nit ki bu génnee àddina bor bi dañu koy tayle ci moom maanaam boy bor bi garantie la ci moom maanaam mu ngi ci aw loosam tant que joxew ñu ko du liibre tànk que joxew ñu ko du libre waaw jël nañ ci xadis imaam ahmad mu ne anna rajulan saala rasul allahi an axiihi maata wa alayhi daynun fa qaala lahu sallallahu alayhi wa sallam huwa maxbuusun bi daynihi faqdi anhu naka librul de waaw ah, libragul de jotagul boppam de ndax bor bi fayal ko ko waaw fayal ko ko moo tax saxaaba boobu ñu tudde jaabir ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala rajulin maata wa alayhi day yonente bi daawul julle ku faatu ta am bor waaw ndax andil nañ ko moom yonente bi fa qaal a alayhi daynum qaalu naam ñu ne ko waaw am na bor ñaata la mu ne ñu ne ko diinaaraani masalan ñu ne ko vingt mille francs am na bor de vingt mille francs waaw mu ne jullee leen seen mbokk jullee leen seen mbokk allahu akbar sallu ala saahibikum ah abu xataada al ansaari jóg ne ka ya rasulallah alayya huma alayya gàddu naa ko danaa ko fay waaw fa salla alayhi rasulullah bamu waxé lolou gàddu borba la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dor ko jullee amna balen riwaya amna ko na ne gadduna borba yenente bi bamu ko jullee ba nopi fumu gisé waja daf koy laaj no defa borba fumu ko gisé rek bor bi mbaa yaa si waaw maa ngi si maa ngi koy fay des na mbaa yaa si maa ngi koy fay des na ba muy fay lépp yenente bi door ko door ko bàyyi kon tamit bu ñu amee néew ku gàddu bor yi du nemport kii rek moo naan maa gàddu bor yi na nekk ko am intention fay bor bi mu xam ne bor boobu tànk ko fayu ko du libre ndax loolu la te yonent bi wa ma yantiqu anil hawa de wa ma yantiqu ah waa ji daal jóge na fi yàlla dina ko ko jéggal déedéet man na ko jéggale naam waaye suñu borom sig màndu teem day wax ne borom bor bi moo gën a yey ci jéggal ko yàlla ku màndu la ku màndu la moom suñu borom kon bu leen ko négliger na ngeen topp ay borom ki jël responsabilité na nekk ku ko sës na nekk koo xamante ne ni dana ko taxawu te ko ci caaxaan tamit waaye mbooloo mi taxaw nga ne maaka gàddu boo fa jógee jeex na da nga war a dem même loo xamul ci jotaay ba nga lijjanti ñi mu daan jëflanteel waaw diw ndax mas ngeen séq ci nangam nga laajte leerlu bu amul alhamdulilah su amee yaa joxe sa kàddu nga góor góorgóorlu ndax bor boobu de dañ koy kay laaj ëllëg waaw kon nag loolu ñu bàyyi ci xel mbokk yi kon daal loolu lañu ñu andi woon ci wàllu borax riba bor moom baax na waaye nit naa na ko dëggu lal na ko soxla lal boo xamante ne bu ñor la bu lislaam bëgg waaye yoo xamante ne moom luxe la rek lii moo xew si jamono te war naa ko am naa dem jël benn prêt ñu tegal ma si 5 pour cent wala 8 pour cent wala nangam pourcentage bi barayul lu mu néew néew loola riba baaxul na ngeen ko moytu ndox waaw la ngay liggéey ñaanal yàlla rek mu barkeel la ko te la la koy barkeel wax naa la sànq lu mel nii. te Ceerno Xaamidu doon wax mooy tuub dëddu àddina dëddu mbooleem ñaaw ah, wan lépp luy àddina ginnaaw boole ko ragal yàlla boole ko jël sa lépp jox ko yàlla subhaanahu wa loolu boo ko defee rek noppalu boo ko defee rek noppalu di nga ñëw nga ne ah Adja maa ngi nii nga foog ne Adja ñum ma milliardaire la waaw lu tax doylu ko waaw nga ne ana diw ñu ne la diw ngi ni nga yaakaar ne millionaire la waaye boo làmboon poche ya dara amuta mais doylu soxla bu mu am mu koy faj waaw ndax léeg-léeg nga ne waaw diw fu muy jële li muy dépensé xoolal la muy dépensé même buñ ko buñ ko doon fay weer loola amu ko walillahi xazainu samawati wal wa magasin yi suuf asamaan ndax lu kenn xamul fu mu ne yàlla moo ko yore wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbuhu ku jël sa lépp jox ko yàlla rek yàlla fiitale fépp yàlla fiitale fépp soo ko booleex ragal yàlla wa man yattaqillah yarzuqhu min xaysu laa yaxtasib fu la la wërsëg di di di ku la gis dafe ne jéexaloo daara yor nga lépp soxla boo songa rek mu faju si sutura si yàlla ci baaxul yàlla kon nag yal na nu yàlla may ak doylu yal na nu yàlla may ak doylu yal yàlla may ak doylu te lu ñu yàlla dénk yàlla mu néew mu bari yàlla na ko yàlla barkeel barkeel la rek moo am solo mbokk yi te yooyu nag dafa am nooy mel yàlla barkeelal la muy ragal yàlla gi muy moytu nda ko safaan muy doylu ragal yàlla jël sa lépp nag jox ko yàlla te nangoo liggéey nag mbokk yi te nangoo liggéey te defee bon ñu ubbil leen ligne bi ci 88 628 10 95 88 628 10 95 mooy gu mu jokkooge incha ñu ngi woon ci leb bor ak riba su ko defee yal na yàlla defal leen tawfiix defal ñu ko incha allah rabbi kon gis nga diine noonu rek la xam sa diine lu ne nga xam ko bu la dara këf ci jamono bu la kenn lii moo fi xew. bu la kenn ne nàngam bokkul ak nag nit ne la ah lii de maa ngi koy jaaye ñaari téeméer wala lii junne wala lii ñeenti junne ah boo lebe teew ñeenti junne waaye bu dee da xaar ba weer wi dee wala ma defal la ñaari weer nag juróomi junne lay jar au lieu de ñeenti junne kooku lislaam d'accord na ci du bor boo xamante ne riba moo ciy dugg parce que moom day yaxantu ci loolo amaana la ngay jël ci marchandise fayloo ko sa saa sa dana am benn impact bu mu def ci économie am waaye su ko defee nag moom am jaay la dangeen waxtaan ba jubboo waaye waxu la dama lay lebal bu ma la lebalee dagg may tegal nangam déedéet teew da lii laay jaay waaye ku koy jël nag ba waxtu sàngam lii nga koy kon daal bor dafa dafa yaatu am na yu leer am na yu lënt waaye daal lépp luy riba ah, na ngeen ko moytu na ko bu baax waaw moo xam nit la moo xam institution la lu mu mën a doon daal ñu lay lebal di sa teg dara loola moom na ngeen ko moytandiku yàlla rek moom moo xam te yàlla moom borom sutura yàlla na yàlla dolli sutura si 88 628 10 95 mooy bu mu jokkoo gi incha allahu rabbi kon su ko defee eh, diine mu ngi noonu mbokk yi diine dafa yomb. moo taxoon yonente bi di wax ne yassiru wala tuassiru na ngeen yombal te bu leen jëfeel yassiru wala moo tax même l'islam mu ngi wax faneen ne kii la lépp toll foo xam ne mënagul fay fa naziratun ila maysura waaw na nga ko muñal waaw lépp na jekkoogul mu ne nang nga ko musal tuuti. yàlla na yàlla defal ñëpp tawféex di nuyu directrice macha allah di nuyu soppe yi nga xam ne macha allah ñoom ñu ngi jaar suuf kon nag ligne bi mu ngi noonu 88 628 10 95 88 628 10 95 ku fëgg rek incha allah ñu ubbil la euh, alhamdulilah bu ñu laa yëkki jotaay bi rek allo salaamaaleykum allo. kooku daaw na xam naa dina fëggaat incha allah 88 628 10 95 mooy guumu jokkoo gi incha allah su ko defee góor gi mu ngi xaar waxtu julli yi moom it incha allah salaamaaleykum allo. waaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. nga daanale am na solo. El Hadj Malick ziar nañ la. nga daanale am na solo. jërëjëf El Hadj. ñu ngi lay ziar bu baax. allahuma amin ya rabbi waɗanane am sala machallah jërëjëf jërëjëf ɗum joyɗu hakkina ɗumala fay ɗumala fay wallahi wallahi wallahi bayigo ko bohemla bayigo ma suba est ce que est ce que ko bala ngay jalla lañ le audité jërëjëf jërëjëf El Hadj Malick bala ngay jalla lañ le audité wallahi dëgg la sama si auditeurs yi suñu borom moo gën a métti. wallaahi wallaahi wallaahi. kon yal na yàlla defal dégg. allahumma amiin El Hadj Malick jërëjëf El Hadj Malick ñu ngi nuyu Abdoulaye Sarr moom it mu ngi jaar si suuf ñu ngi koy nuyu bu baax eh, di ziar suñu yaay booy yaafaal ñu ngi koy ziar bu baax moom it di ko ñaanal yàlla tawfiix eh, di nuyu njaboot gi ñëpp incha allah ci 88 628 10 95 El Hadj Malick macha allah wax na dëgg yàlla na ko yàlla fayal moom it wax dëgg yàlla ku soppa rajo bi la kuy topp yëpp la eh, sopp yëpp ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm tawfiix sutura yàlla na la ko yàlla defal wax dëgg yàlla yaa ngi ràbbale jamono bu ne. Eh, yaa ngi defar nu mu gën a baaxe yal na yàlla mii borom sutura dolli sa sutura bu baax El Hadj ak képp ku mel ni yaw yal na yàlla defal leen ko eh, soppe yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla tawfiixul ilaahi di ñaan yàlla mi nga xamante ne mooy borom sutura yal na nu yàlla defal sutura su sax incha allahu rabbi su ko defee rek ku fëgg ñu ubbil la am ñu profité rek joxe waxtu julli yi incha allah eh, ci fajar gi 6 heures 23 minutes. danañu salaatu 6 heures 38 ñu taxawal julli kon 6 heures 23 danañu allo salaamaaleykum allo wa aleykum salaam ñu ngi delloo ziar Kolle alhamdulilah ñëpp la koy delloo alhamdulilah jërëjëf jërëjëf mbaa ñu ngi si jàmm jërëjëf jërëjëf alhamdulilah naka munaas teew naa sant alhamdulilah allah incha yàlla doole ah jigéen ñi dañoom bari nañuy jël ci ay crédit yooyu di leen di tegal dara mbaa dégg waxtaan wi rek waaw waaw waaw moo xawoon kii ah d'accord d'accord ah d'accord jërëjëf jërëjëf macha jërëjëf ko la yàlla na yàlla defal leen tawfiq alhamdulilah di nuy njaboot gi yëpp si 88 628 10 95 ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa Cambérène eh, fa mu nekk ligne bi xëj na moo desee kii tuuti jërëjëf ci dugg bi macha allah yan na yàlla fay taxaw di nuyu sopp yëpp sa ngor ñu ngi leen di nuyu eh, Okam soppe fa ne jëppal macha allah soppe ñu ngi leen di nuyu. Eh, Cheikh Ahmed Bamba ah, ña ngay nekkal ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu wax dëgg yàlla di rafetlu seen teewaay eh, di rafet lu seen ànd ak ñun eh, Cheikh si ci Ngor macha allah yow ñu ngi yëg seen ñaan seen topp émission bi soppe yi nga xam ne ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi suivre macha allah koo ci gis rek mu ngi teewlu te ñoom it ñu ngi jaajëfal techniciens yi bu baax a baax a baax ndax waxtaani ñoom am na ñoo xam ne bu leen rawee rek ñu ngi koy dàkkiwaat ci ci ci réseau bi. kon nag euh, toujours rek man ngeen di dàkk Safina bu ngeen demee ci YouTube bi bu ngeen demee Safina TV incha allah da ngeen fekk léeg-léeg waxtaanee Safina yi allo. ah El Hadj Doudou ah, sant yàlla Seck. sant yàlla bu baax. jërëjëf Seck. allahuma amiin ñu ngi la koy ñaanal. Eh, émission bi am na solo. jërëjëf. allahuma amiin. barke rajo kon borom rajo bi. allahumma amiin sëñ allahumma amiin. Euh, mm-hmm. Thierno Hamidou Bane. ñu ma ba jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. amiin yaa rabbi jërëjëf. mu ngi lay dégg walaay. Mm-hmm. Euh, les doyens. doyens yi jërëjëf. macha mm, allah. allahumma amiin amiin amiin sëñ. waaw war nga wan macha allah. sammo jërëjëf jërëjëf ngaala dia machallah amin ya rabbi amin jërëjëf jërëjëf jërëjëf machallah jërëjëf jërëjëf waay sek jërëjëf aha waaw jërëjëf matériel aussi lépp looy lépp la rek tam mu am loo ciy gënale luñ ciy teg rek loola riba la waaw lépp luñ ci teg rek loola riba la jërëjëf Seck jërëjëf macha allah El dudu Doudou du nuyu waa Liberté ñëpp macha allah soxna Binta Mbaye ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp Liberté yi ñoom Liberté yëpp ñu ngi leen di nuyu macha allah bàyyiwuñu benn Liberté te jo nuyoo El dudu Doudou ah ak soxna Binta Mbaye ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax waa jëppal fàttew ñu leen waa Castor waa Derklé zone boobu yëpp macha allah soppe fa nekk yal yàlla dafa leen tawfiix marché Grand Yoff ña fa nekk it macha allah Hamidou ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu allo salaamaaleykum. ah Baba Warga Wan. ñu ngi lay ziar bu baax. sant yàlla bu baax. alhamdulilah. ñëpp a ngi fi ñëpp a ngi fi. sant yàlla bu baax wan. allahuma amin. waaw Thierno kay macha allah. ñu ngi ko gërëm di ko sant de. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. lii moom xéewal la. xéewal la kay. <laughs> alhamdulillah rabbil alamin yal na ko yàlla oyofal seen amin amin ndax diine du wallahi dëgg la wan ku ma hmm. yàlla ya may nag yàlla duggal la ci diine hmm. santal ya allahu akbar wan jërëjëf nag ñu ngi gërëm di sant ñaanal yàlla wallahi wan wallahi wan yàlla ko defal amin wan ñi ma baa xam war ñaanal de wallahi dëgg la ñu ma jigen jigéen jigéen gam xaq l'islam ah, wallahi jàmbaar la Eh, ñaanal yàlla nag yàlla wàcc barket njaboot gi. amiin amiin amiin amiin. waaw xam nga at. ah. yàlla atte na bu pare. allahu akbar. li ci des kay nit yi rek ñoo dëgër bopp. wallahi. waaye yàlla du waxantu de. déedéet déedéet déedéet. da ngay seet ci adduna sax balaa borom génn adduna. Ah. Eh, dëggaay wax borom bu soobee yàlla. Eh, bu weer fee dana la ko indi. <laughs> waaye nag ci soobare yàlla la. ci jërëjëf ci toobareem la kay. waaw ci diggante bi rek fekkee def na. Mhm. lu mu soob jërëjëf. fay rek fay rek jërëjëf wallaay dëgg la wallaay wan dëgg la. a bor nag. Mhm. yal nañu yàlla defal neexul fay de. neexul fay de jërëjëf. bor boo amul seede. ah am da neexul fay de. <laughs> si si ja ah góor boobu neexul fay de. neexul fay neexul fay. waaye lu waay def rek boppam. lu waay def boppam walaay dëgg la. maa ngi nuyu eh, El Hadj Malick ki génn léegi. El mu ngi lay dégg. ak El Hadj Doudou Seck El Hadj Doudou Seck. bàyyi ngaa la gañ naa ko dégg. waaw mu ngi fi mu ngi <laughs> lay dégg. man ku ñaanal yal na ko yàlla may kattan. allahumma amiin amiin defal ko sutura ak rabbi. ndax Amadou ku baax la. ku baax la kay ku baax la. Amadou ku ko la wallaay wallaay ku baax la. te Amadou la. askay askay day am day am yurmande. allahu akbar. mus naa fi jóg bii bis. Ah. ma ne kon nag comme mosuñu gisant. Mm-hmm. naa dem seeti ko. askay askay. ma wóor kër ga ba yàlla def na ma gis ko. Uh-huh. waaye bi ma duggee ci kër ga. Uh-huh. mais eh, fi fi may toogloo sax man kalaatu woon man yelloo naa ci loolu. allahu akbar askay. bi may dem tam ne alors noonu la def dafa ma bett. Mm-hmm. defat ma loo xam ne lii. askay askay eh, Amadou ñoo eh, Amadou Sow. Ah. yal na ko yàlla may. allahumma amiin yal na ko yàlla jàppale. amiin yaa rabbi. yal na ko yàlla may kattan. amiin amiin am ci sagam. yàlla bàcce njaboot njaboot yi. allahumma amiin yal na ko yàlla defal. allahumma amiin. man nag Thierno du ma tàggoo ñaanal ko. dëgg wallaay sax. du ma ko tàggoo de ci ñaanal ko. Mhm, mhm. ndax loo loo gis ci mu ngi ci Thierno. wallaay wallaay wallaay. man daan ci rukku Thierno bi. Mhm. pour ma jógloo foofu dafa jafe de. <laughs> est-ce que est-ce que est-ce que. li fi nekk foofu foofu rek nekk feneen. wallaay dëgg la yàlla bee jamono bi ñu nekk léegi. dégg dégg de yàlla nee na yàlla nee na yonante neen. waaye fi may dem rek. askay foofu la nekk rek. macha allah. kon nag maa ngi koy ñaanal yàlla nag. wallaay wallaay jërëjëf dina ñaanal ko yàlla. Mhm. ndax jangal na ma. wallaay wallaay jàngal na jërëjëf ñëpp sax parce yow mii. yaa ngi wax yàlla nee na yonante nee na. maa ngi déglu. dëgg la. su ma juumee léegi ma wala ma ne la day man lii lee ak lii <laughs> wallaay dëgg la kon da nga may tegalaat ci raay bi est-ce que nag ci njàngala di njàngala kay man nag du ma tàggoo ci ñaanal ceerno wax macha allah macha allah parce na ma gis est bindal na ma lii jàngal. est-ce la yàlla toppee. Hmm. lii ak lii ak lii. est-ce que. wax dëgg yàlla maa ngi koy gërëm sant. alhamdulilah yàlla yàlla wàcc ba. allahumma amiin. salaamaaleykum jërëjëf Baba Warga jërëjëf wan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Euh, jërëjëf si ñaani Abdoulaye Sarr Ginte macha allah yal na yàlla dolli sa sutura aussi ñaani ak seen nee na mu ngi nuyu ñëpp xam naa jàpp moo tax duggul wax dëgg yàlla mu ngi ziar ñëpp allo salaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. war ah Sow Sow Sow. Mbaye Mbaye Sow. ñu ngi lay ziar Sow. yéenay lépp. wallaay Sow. wallaay yéenay lépp. jërëjëf Sow. li ngeen ma yàqal yëpp. alhamdulilah Sow. yéen a koy alhamdulilah. maa ngi leen di ñaanal gudd. jërëjëf jërëjëf. ak jàmm yàlla gudd. allahumma amiin Sow. loolu suma gis du yàlla sàkk. jërëjëf. billaahi wallaahi. dama dama teg. wallaay Sow. ak suma topp ma toll. seetalu ma la ko yow. wallaay dëgg la saw seetalu ma ko doomu aadama. Mm-hmm. yàlla rek laa yàlla rek kay wallaay dëgg la wallaay dëgg la saw yàlla yàlla guddal seenu allahuma amiin yàlla yàlla yokk moom amiin saw wargawaan moom it dinaa mm-hmm. wax wallaay dëgg la ah, ah fekk moom it dégg naa wax dëgg la dëgg la wallaay dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg toll foo xam ne rek uh-huh, uh-huh. alhamdulilah uh-huh. duma ci umb waaye deme fekk moom noo xam ni xol bi dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la waaye maa ngi ñaan ci yàlla dëgg la saw dëgg la saw jërëjëf saw amin amin amin incha allah saw jërëjëf saw allahuma amin saw allahuma amin saw amin saw saw jërëjëf saw jërëjëf saw jërëjëf saw jërëjëf saw wallahi wallahi jërëjëf Sow alhamdulilah alhamdulilah Sow amin Sow incha allah jërëjëf mi ngi nuyu maire bi bu baax a baax a baax di nuyu secrétaire macha allah ñoom ñëpp yal na yàlla dolli sutura jërëjëf Sow jërëjëf incha allah ñoom ñëpp a ngi lay dégg te ñu ñoom ñëpp a ngi lay dégg wallahi jërëjëf Sow jërëjëf wallahi wallaay ñu maax ceer na wallaay ñu ngi lay dégg jërëjëf jërëjëf jërëjëf allahuma amin amin saw jërëjëf sow sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf saw jërëjëf macha allah kooku mooy góor gi Amadou Sow rajo yokkute macha allah kon nag eh, sant yàlla daal xol yi bég nañ comme ni mu ko waxee rek saa yun ko déggee rek mbégte lay doon eh, mag la yaramu mag wax dëgg yàlla Eh, fa mu nekk wax dëgg yàlla rajo bi rek lay wéttale ko te am na ngànt ci oote wax dëgg yàlla waaye du ko mën muñ waaw xam ne dafa toog toog xam naa rek mënu ko muñ mu ne naa dugg waaw koo xamante ne macha allah li nga laxasi ay at wallahi wallaay macha allah eh, te bu waxee rek nga foog ne eh, daal mu ngi noonu daal sant yàlla waaw yal na yàlla gën ko fi bàyyi ba sa kanam a kanam a kanam mu ànd ak wér ak wér la njabootam ñoom ñëpp mag ñi tamit Pawar Gawon El Hadj Doudou Seck El Hadj Baye Ngala ah ñu mel ni ñoom euh, di déglu ñëpp yàlla na ko yàlla defal ñëpp ñi féete ndaw yàlla def ay mag tabarkeel leen saxale ci diine islaam réew mi yàlla def fi naataange kër yàlla def fi naataange sutura fi ñuy dégg ay musiba ay bela yooyu yëpp coronavirus ba ñuy dégg fële ci Chine yàlla na ko fa yàlla yemale te mu saafara leen ñoom ñëpp macha allah fitna yi xew ci réew mi it rey yi bare yeex yëpp yàlla na ko fi yàlla yemale jàmm daal yàlla na ko yàlla def ci àddina la yàlla doon wax ne zahara al fasadu fi l barri wal baxri yàlla nu yàlla teggil mbooleem xeeti yàqu-yàqu bu am si kaw suuf yàlla andi fi njub yàlla andi fi màndute yàlla andi fi soppante dal sutura naataange waaye ñun ñëpp ñu ànd rek si jaamu yàlla ba ëllëg bu ñu dajeex moom mu boole ñu ak ñi nga xamante dafa doon wax ne radiyallahu anhum wa radu anhu yàlla bëgg na ci ñoom ñoom it bëgg nañu ci yàlla ndax la yàlla bëgg ci ñoom mooy la mu leen santoon def nañu ko yàlla bëgg si ñoom waaye ñu nit waradu anhu bëgg nañu ci moom ndax la mu ñu digoon def nañu ko kon nag yàlla na yàlla defal ñëpp tawfiix yàlla na yàlla dooli sutura di leen dox daje ba aljuma bi di ñëw inchaa allahu rabbi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu